jërëjëf dollar cent francs ñu jàppee ko noonu du dëgg euh, ayca ñu daal di ñëw ci euh, avant dernier point bi Barthélemy mi nga xam ne da def euh, bilan. ñi mm. ki démb bilan wu mi mandat la bu mu demee ba ci digg bi saytu na wane na liggéey bi nga xamante ne mu ngi koy def ci mairie bu Dakar bi nga xam ne bu ñu ko ko dénkee léegi daanaka appam jotagul. Mm. waaye dafa euh, jël at mu ne dina leeral li nga xamante ne jéego yi nga xam ni euh, moom la jot a def ci mairie bu Dakar. Mm. jàngat bi lan la. ay la yowoon imam àndoon ngeen ci jamono d'ailleurs sax bi ñuy campagne ba ñu fal ko. Mm-hmm. bokkoon nga ci ñu ko doon dooleel. Mm-hmm. yàlla def na tey tàggoo ngeen mais du tey yaa ngi bàyyi xel liggéey bi muy def na bilan comme ni ko ci ay pàcc yu wuute. am mm-hmm. pavage santé wàllu éducation mm-hmm. li nga xam ne jot na koo defagum ak it yéene yi mu am fi ak ñaari at jàpp ñett yi ko dese ci bopp ndakaaru mm-hmm. danga naan alhamdulilah la taxoon ma doon xeex démb ak barki démb bañ teg ko fi ma nga ca wala boobee bilan non man ngay yow laay laaj. <laughs> ci bilan waaw. waaw <laughs> alhamdulilah ngay wax ci li mu defagul. <laughs> yaay wax alhamdulilah <laughs> ñu xam ba parce que liggéey bi muy def pour waa Ndakaaru la yow da bokk waa Ndakaaru waa déedéet da nga maa wax ne ma yé da nga da nga ne alhamdulilah da ngaa jiital benn mot mooy alhamdulilah déedéet mooy ni yéen a àndoon da ngaa conjugué au passé yéen a àndoon waaw da nga conjugué au passé waaw léegi ci fen bi na nga indil ma futur waa moom laa lay wax ne mu la muy wax ne ndax da naan alhamdulilah waa jëf ji jëf ji xam nga lee ànd la ci politique waaw léegi jëf ji jëf moom dinaa la ci tontu ñaar ah. mi mandat man moo gis mu def ko jiite na commune maire moo sacré kër tekkiwul na nag la muy def mii mandat du dëgg wala dëgg la. Hmm. loolu du man maa koy wax mais xam naa ni ñaara daal mooy am nabu. Hmm. nabu. Hmm. ñaar mooy am. mandat bu ñu la ko joxee. nga dem ba ci digg ba ne naa leeral. soit muy sa yéene bopp wala muy réalité yi pousser la pour nga leeral. réalité yi. poussé la pour nga leeral. waaye yaakaar naa daal mi mandat daal man euh, euh, am na mais euh, nekk na loo xamante ni am na lu ko causé. nañu wax mais imaam li mu wax ni def na ko gis nga ko. man mani wala gisoo ko. déedéet gisuma ko du lépp laa gis. gisoo pavage mais nekkatuma fa. gisoo éclairage public. foo gis yaa ngi dox biir Dakar noonu foo gis pavage. gisoo fa foo ko gis li ma ma benn ñaar ñett. gisee ay. Euh, taaboo yi liggéey ci ay lycée lycée war a taxawal ay toilettes ay écoles yu ñuy réformé ay douche gis naa ko ay douche. ay douche ay douche. douche la gis naa ay toilettes c'est bon. toilette publique waaw non. Ah, nee naa c'est bon très important. tuur dugub baax na. Ah, waaw Ibrahima ma ni nabu tuur dugub dafa baax. Ah, baax tuur ndox baax na nabu. waaw. ah tuur dugub farata la. surtout nag nga def ko foo xamante ni tey ku doon dox. ku doon dox ba gisul fu mu ko war a defee mu dem defi ko man man tur dugub yooyu laa gis. imaam loolu nga gis xanaa ne xanaa da nga gëj a doxantu biir Ndakaaru gis naa ah mais man tamit Ndakaaru laa dëkk nag. bërki démb bërki bu def nañ benn plateau. gis naa de pose première pierre yu ñu def. Ah mais xam nga. lycée gisoo lycée yi war a tax pose premier pierre bokkut ak nga ni lii pare na. kaay leen ñu sa jàmbat ko kaay leen ma wan leen li ma liggéey. mais ci social mu ngi taxaw. waaw euh, social social moom mën na ko trop. Ah. social moom hmm. ay la yéen ba ma fay nekk xam naa ni ci social lay dox loo bañ-bañ lépp seddal ko gudd noppam ah. mais bu ma nee tuur dugub laa gis nangul leen ma ko bu ngeen gisee pavage wala ngeen gis lu lu ñu commencé mu egg nañ ma ko wax lii egg nag lañuy defal bilan mais duñ ne la tabaxal kër gi nga dem ba ci digg bi ne naa def bilan ku la ko laaj ah, mais ku la laaj bilan bi ndax dañ ko ko war a laaj. wax ma kan moo la laaj bilan bi. waaw mais loolu day wane ne dafa jub moom waaw livre blanc bu Macky kan moo leen laaj livre blanc. dañ leen ko war a laaj. <laughs> ñun askan wi xam nga moo tax ñu folli leen ñun askan wi. looloo tax ñu xeex du tee pour la postérité baal ma rek baal ma ma bi laa wax ah. kan moo leen ko laaj ak lu tax ñu xaar ba président Ousmane Sonko rapport yi yëpp tegu na ci sama loxo waaye su fekkee li may wax du dëgg nga ne ma du dëgg wan ami rapport yi tegu na ci sama loxo nga xëy suba ni naa def bilan livre blanc xam nga mooy lan naa kar Ousmane Sonko ci nit ñi pour que ëllëg bu bëggee ne ma defoo lii defoo laa wala luubal nga lii wala laa nit ñi mën a taxaw ne ma non non non ki dem. mais mais Imaam mën nga ni peut-être livre blanc bi dafa yéex a génn waaye wax dëgg yàlla liggéey ba jeexal taxaw ne lii laa liggéey lii ngeen ma defoon. nangam ak nangam def naa telle réalisation c'est une bonne chose quand même. a la jeexoon. Hmm? kañ la liggéey bi jeexoon. fi mu ko defee. fi mu ko defee moo dul defu bi moom moom moom waa kër Macky Sall hmm. fi ñu ko defee nabu du defu bi fi ñu ko defee dañu xaar ba ñu ba ñu épinglé leen mais imam yaa ngi glissé. ñu ngi ci glissé wu ma de waaw su ma waxee nag da ngay xelal xel nga tooge. fi ñu ko defee laa la wax. moo jaaxal nit ñi am na lu xew. xamoo ni collectivité locale yi. Hmm. seeni rapport mu ngi tege. rapport ya tege ci APR ak lañ doon gérer nguur gi noonu la maire yi ni ñu ko doon gérer tege ci kanam. ba ci mairie bu Dakar. ma ni la bàyyiwuma benn mairie lépp a ngi tege. seeni rapport lépp ku ci mos a luubal wala loo ci yow tamit dafa nga ne dafa nga ne état da nga ko yore di xaaj di def demi mesure auditer état auditer Macky Sall ak groupe am collectivité locale yi doo ko auditer. yooyu Imaam sañ ngaa wax fii ni Barthélemy Diaz. am na dara ci gestion bi lu ñu ko reproché loo xamante ne dana fenc ay rapport da dégg ma wax la ci ñaari at yi ak lu teg da ngaa dégg ma wax la loolu ah déet loolu ngay junj déet bul ne sañ nga wax déet da xaar ba ma ne la Barthélemy Toye Dias ah kon génne ko kay ah, da ñu koy kay laa comprendre déedéet il faut yaa ngi koy junj gis nga wax waa gis nga wax bu dofee nopp yi koy dégg nit na leer rek bu leeree ñëpp dégg ko xam nga lu may junj xam nga lu may bañ waaw diffamation Ah, ah kon bàyyil ba mu leer imam déet yaa ma posé question ma tontu leen. waaw ma laaj yow nga ne ma maire yëpp. dafa ndànk maire yëpp kay. seen rapport laa wax tege na ci taabalu premier kenn du ko dindi. ana lu takk ci bu mairie bu Dakar. waa léegi la ca takk nag. mu door Fass ma bul la ca takk. Ah. lu ci takkul. taa takk bu takkee. takk bu takkee. mu ngi ñëw ndax takk na. am ah, man nga naan takk dama tim xam naa ne rapport yi taay mu ngi tege mais liiruma rapport yi. rapport commune maire moo sacré te yaa ngi foon de. yaa ngi woon fan. moom foofu ba nga fay nekk ndax lépp a ngi tege ci yoon. waaw am na loo xamante ni yow doo ko xam parce que gérer woo dossier yooyu. dama laa laaj dama ne ba nga a ngi doon tege ci yoon. ndax lépp a ngi doon tegu ci yoon. amoon euh, dara lu ñuy laam-laamee ci gestion wu. Euh, Barth ci mairie bu Sacré-Cœur dinañ ko jox lu toll nii Dakar Dakar la ba. Euh, Nabu. Ah. dama ni leen. lii dara dara ngeen koy jàppale yéen xamoo leen woon ni. dama ni leen rapport yu collectivité locale yi. Ah. yépp daje na conclure nañ ko ma nga ca ña nga xamante ni ñoo santaane woon ñu defal leen rapport léegi nag ndax jaar na yoon jarul teel a yuuxu walla jaarul yoon jarul tàccu ah. ñaar yooyu fi am bu jaaree yoon alhamdulilah jarul def mi bu jaarul yoon a ah, sa mi mandat boobu danañu xam ndax dëgg la walla déet ci lu yàggul ah faaw nga laxas jaar ci mi mandat bi. non du laxas man olof yi. xaajal naa xaajal naa rek ñëw jàkkaarloog waa Ndakaaru. olof dañ ko mos a gis. ne leen am na lu ma leen diggoon. am na lu tàmbali man de man de ñi fi jaar day nabu. ma du Diop a ah, xaj na sama mémoire mën ma nax wala Papa Diop mosut a feete mi waa ñàkk koo defi tekkiwul ne moom bu ñëwee gis ni war na ko mën a def jamono laaj ko mu def ko. waa léegi man ma sañ laa wax ne la nag. Ah. gis nga sànce buñ la ko joxee Ousmane. nga commencé ko di début ba ci digg ba est-ce que sant nañ la nga ñëw def kii rapport buy wane ni fii nga toll ak nangam ak bu ñu la ko santee garaawul si tu es nag nga wax nit ñu ne de si obligé. oui ànd ak nit voté na moom Barthélemy Diaz barki Dembo Ndiaye ci bu ñu bëggee supprimer ñaari institution yi bokkoon na ci ne waaw. ndax ñëw na voté. waaw nag loo taxaw ak parce que biir assemblée par procuration voté na par procuration. te ñu ngi wax ni li lu mucc ne ay waxtaan mën naa am ci diggante Khalifa Sall na ni man mii nii du ma daw mais lii ngeen wax nii gis naa ne daal jëmmam gisuma ko foofu. waa ñëw waaw procuration la def ma ñëw baal ma ñëw procuration maa ngi koy soog a dégg ci yéen. waaw. Ah. Hmm. maa la ko wax nag. gëstuma ko sax maa ngi koy soog a dégg ci yéen lu mu wote. ah voté par procuration. non wala oui. Pastef la am waaw oui oui. alhamdulilah non état bi la àndal rek bul ne Pastef bu koy ànd ak Pastef état bi la àndal ci li ñu sàkku ci askan wi. Hmm. waaw ndaw yi réew yaa fa toog di kon réew mi la dafa ànd ak réew mi rek. loolu c'est pas mal. Paris exercice bi lu ñu saluer ah, la ci gestion voilà ah. Euh, personnellement imam daal faanaana man. <laughs> je l'encourage Barthélémy Diaz. je l'encourage je l'encourage bien sûr. parce que c'est un maire quoi que l'on dise hein, man au-delà des obédiences politiques j'y crois pas c'est un maire qui travaille pour Dakar. et ça je pense que képp kuy